الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يا همة سيخي أتري لنا بهذا مهدري ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بزفر السلام عليكم ورحمة الله وسبت أنصار الدين يملن دين نيو يملن دين دوكيل دي لين زيارة ñu fas yéene ينتي si يالا تسين درسي بيدي سيرو قلبي seyru qalbi nag ñu baaxoo ko ànd ak yéen aljuma ji jot ci waxtu wii ginnaaw biñ baxee ko ci mawlid bi ñu jokkaat rek fi nga xam ne fa lañ taxawoon ñu ngi xemoon ci xarfu jiim bi bàyyi doon tagg yonantu bi sallallahu alayhi yi nga xam ne dem na fa di wasaare diine yal na yàlla nangul ñu suñ mawlid ñun ñëpp dañ fekkee xaat ko moo tax bàyyi mu ngi wax ne wa fi kulli hayyin qad qabata bi nimatin إلى كل هي قد بذلت منالا baay mu ne fa fii kulli hayyin gox yi yëpp xad xabatta tuur nga fa bi nimatin sa xiiwal gi ilaa kulli hayyin jëm ci mboolem gox nag xad basalta wasaare nga fa manaa la sa may yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne gox yi yëpp yow yaay ki nga xam ne yaa fa dóor sa may yi waaye gox yi yëpp yow yaay ki nga xam ne yaa fa tasaare sa may yi Hmm. bàyyi mu ne alawtul bihaara zaqirati wa innani alawtul qura wal mudna bal hal jibala arumu riddal baari li nusrati diinihi wa ubrizu li jadidi misala bàyyi mu ne alawtu tiim naa alawtu féete naa kow albihaara géej yi azaqiraati maanaam océan yi nga xam ne yu bari ndox lañ mu ne tiim naa leen wa inna nii naka baay alaw tuutiim na alqura dëkk kaw yi wal mud na ak ville yi bal xaal jibaala ba ci montagne yi sax tiim naa leen ñu ne bàyyi loolu yëpp lu taxoon nga koy def tiim nga géej gi océan yi tiim nga dëkk kaw yi tiim nga ville yi yi tiim nga leen loolu lu ko waral mu ne aruumu maa ngi sakkuri dal baari ngir mandeg yàlla suñu borom li tax may def loolu yëpp nag ngir yàlla gërëm ma rek moo taxoon de ñu ne boo amee ngir mandeg yàlla loo ci jublu mu ne li nusrati diinihi pour ma mun a dimbale diineem bi kon nga déggee ci ne ndimbal ak diine mooy baay moo tax bi ñu alquran waxee ne iza jaa nasrullahi wal fatu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan laahu daal nasroom bi saa bu dikkee ci ngay gisee nit ñi ñuy dugg ci diine yàlla bi mbooloo par mbooloo ma ne leen kon kan mooy nasrullahi bi kan la ay junne yi junne ay millions yi millions yi taalibe di dugg ci ci diine bi ci loxoom kooku mooy Cheikh Ibrahim متامنا علوت البهار الذاخرات وإنني علوت القرى والمرنبها الجبال أروم رد الباري لنصرة دينه وأبرز لجيل الجديد مثالا كوكو باي رضي الله عنه لغي باي موني موني و أروم مانجي سكو رد الباري انجر ماندك يالله لنصرة دينه انجر مونا ديمبال دينم جي وأبرز ما فين لجيل الجديد نيال نوفل جنراسيون misaala ma jox leen ay exemple damay sàkku yalla gërëm ma bu ma yàlla gërëmee ma mën a jox ñi nga xam xam ne ñoom ñooy masse gu bees gi masse bees gi mooy nouvelle génération ma ma jox leen ay misaal maanaam ñoom ñëpp man maay doon seen exemple daifun alilun saibun mutahamisun li yanzura diinan la yuridu qitaala bàyyi mu ne daifun ku lotto ali daifun ku néew kattan alilun ku lott saa ibun mu ne koo xamante ne ku béjjaaw la mutahammisun waaye ku am volonté la mu mutahammisun ku am volonté wala ku ngoyaalu kooku li yanzura diinan ngir mu dimbale diine ji waaye dimbale googu mu bugg a dimbale diine ji laa yuridu bugguma mukk qitaalan ab xeex maanaam buggul dimbale diine ji jaare ko ci ay xeex ñu ne lu tax loolu bàyyi xanaa donnoo yonant bi sallallahu alayhi wa sallama te yonant yàlla maama sallallahu alayhi wa dafa xare bàyyi mu ne mukk li anna nabiya alhaasimi dahra ma qada bala sa daa udwaanan wa radda dalala li anna nabiya alhaasimi naka yonant bi nga xam ne mooy ko jag haasim bi dahra diirug jamaanu ma qada mosul xare balaa li xew kay sadda udwaanan daf doon gàllankoor ñi nga xam ne sadda daf doon baare udwaanan ñi nga xam ne dañ doon noonoo diine wa radda dalala muy delloo réer ab gannaaw léegi nag bàyyi mu ne تقاثفه لا يواء شرقا ومغربا يبين الهدى فيلا وقالا وهالا تقاصفه من كوي أو هانتي شيء كوكو موي شيخ إبراهيم من نينا تقاصفه الأجواء جوي ñoy aw hante cheikh ibrahima Sarkan ci penku bi anti maghriban ak bi bu penku bi jëlee ba ci yàgg rek sànniwaat ko xarfu bi mu ne jaww yaa ngi koy aw hante yu huda mu ngi rek ab fiilan ci jëfam waqaalan ak ci waxa waxaala ak ci melokaan bi moo tax ñu ne baay jëfam nit bëggee na ci diine ba dugg ci ñu ne waxam nit bëggee na ci diine ba dugg ci waaye melokaanam it nit bëggee na ci diine dugg ci moo tax mu ne yu biinul huda fiilan waqaalan waxaala fiilu mooy jëf ji nit duggee na ci xawlu wax ji nit duggee na ci xaalan melokaan bi nit duggee na ci ndax baay taaram bi am na ñoo xam ne taar gi rek lañ gis tax ñu dugg am ñoo xam ne kaddu gu neex gi moo leen dugal waaye ñenn ñi jëf ju sell ji bañ tuddee ko seexal islam moo leen dugal kooku mooy bàyyi ñu ne ko ndax dëkk yi ñu doon wax ci sa tukki gi jeex na mu ne déedéet bi kantoona janbal xarmi di tawassuli bi qaaidihi radda juyusa wasala bi na demoon naa kanton foofa mooy fan mu ne janbal xarmi wetu kangam ba kan la saadi saadi mooy saadi ibnu waqas tawassuli def naa ci moom tawassul canton fa nga xamé ne fa lañ denc saadu ibnu waqas bay mu ne dem na fa koku moy xan mu ne bi qaidi ci général ba général ba nga xamné ne radda juyu mo dere won almi ba wasaala ak songu ramahum sannina len bi amril hasimi ci ndigal ak yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wa wa innahu liqaw xew ba xew jumu al na jumu jalgati mboolem wa bala ay musiba saadu boo nga xam ne moo attaqué woon mbooloo yi nga xam ne ñooy musi ñooy jalgatikat yi musal leen ay musiba ci la baay waxee ne alayka salaamullahi yaa saadu innahu ataqa qifaafun si siqaala dem na nag ba ci raw du xaf saadu ba mu ngi koy ziyaara mu nga naan ko alayka yàlla nekk ci yow salaamullahi julle yàlla yaa saadu yow saadu innahu li mbir tey mbir ataaka dikkal naa te faafan maa ngi oyof tollu yar ji maa ngi dellu si xaalaa ñu nga dis gann biñ lay dikkal ñu ngi oyof toll waaye biñ la ziyaare bay wëññeeku ñu ngi dis gann ak ay mbóot li pekkeena min kantoona bi siini naa iyan wa qawla qutadu qad abatta rihala baay mu ne li pekkeena dem naa pekke min kantoona fekk maa nga baaxee koo foofa fan la mu ne bi siini na iyan ca siin gu sori ga dama dem ca tukki ba be wa kaw laku tadoo xad abatta rihaala cay xam ngeen ni kii liggéeyal dina lislaam mu ne dem naa Pékin maa ngay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar siin mu ne Kaolack sax dafa mujj di ma woo naan ma cay sëriñ bi sa tukki gi sori na sori na ñibbisil moo tax mu ne wa kaw laku tadoo xad abatta rihaala koko moy bay radiyallahu anhu mota mune li penkena min kantona bi sinina iyan wa qawla qutadu qad abatta rihala wa aqir dawana alhamdulillahi rabbil alamin